ab xol ñaar mu mënu coo daje bëgg àddina lool ak bëgg yàlla lool moo nax ndab ndox ak safara mën nañ caa daje ku bëgg soxna mu jafe a ah, yaakaar naa da nga amul xaalis ku njabar may jabar njabar moo lay xañ ak jubo ku bëgg baax bul ne lu ma def rek lu baax dañ may fay lu bon su fekkee loolu nga gëm naroo def lu baax naroo nekk ku baax looy def ne yàlla tax bul xaar ci nit ñi dara ndax nit ñi bari góorewuñu jamonoy nafsi nafsi lañ toll mooy jamonoy bopp sa bopp kon nag looy def ne yàlla tax lu ko mooy danga nga perte ñaari yoon yàlla du la gërëm nit ñi duñ la gërëm ku la tàqaleeg say mbokk waajal xam ne dañ la tàqaleeg sa bopp dëkk bu amul kilifa jarte ñee lu mu yàgg-yàgg ci coono lañ jëm